affaire yi métti na trop da nga yor sa bagage ak bagage yi jàmbur. yow loo doon jaay. ñun ay yére lañ jaay jinn ak tiset waaw say bagaas nga yor ak bagage yi jàmbur nga xëy xëy rek ñu woo fajar gi ne la lakk na mënoo ci dara nooy def. mais gis nañ ne ñuy toj marché bi mi ngi mel ni génnewuñ fa dara. mais génnewuñ ci dara lii tamit jaaxal nga ñu yaa ñoo yow ñoo ci bokk yem gis nañ ñu ngi toj ay bagaas jàmbur lañ tamit autorité yi ñu ngi ñëw fi wax ñu dara xamuñu demee. mais ñun tamit instant yi dañoo jaaxle xamuñu lu ñu wax xamuñu lu ñu def dul toog di leen seeraan rek ba xam fu ñu mujj ak ñun mais ku ñu mën a jàppee mu jàpp ci affaire yi dafa métti ndax yombul yombul yor ay yor ay bagage jàmbur ay millions tëdd rek ñu wala fajateel nga fëq sa kër ñëw fii fekkoo fi dara nooy def lu dul toog dafa métti waaw ak tabaski bi nii sa war a ñëw ak yeneen yi ak xar yooyu. métti na moom mais nooy réagir ak autorité yi loo leen la lii moom ku ci gis it ku ci jotit ku ci déggit lépp rek ku ci sa loxo jotit nga jàppale ñu rek waaw jàppale ñu affaire yi métti na mais ku ne yaa ma gën a xam yàgg nañ fi ay yu mel yàgg na fi am mais dañuy wax rek mu nax lii mun naa bana bañ a bokk ak yooyu parce que ñu fi nekk ñëpp gi nga ay ndaw lañ te ku ci nekk yor nga sa xaalis ak xaalis jàmbur boole ko di liggéey nga xëy ñu wala affaire yi demee nii mais nañu soutenir rek jàppale ñu quoi waaw ñu ngi leen di masawu sëñ bi di leen jaajëfal bu baax